voilà comme ni ngeen ko gisee nii fii mooy Cambérène 2 damay yëg ci kaw terrasse pour mën a am vie de loin mën a jël lépp borom kër yëpp dañoo yokk seeni mur pour bañ ndox bi dugg ci seeni kër parce que chaque année ndox bi day versé ci biir kër yi comme ni ngeen koy gisee nii taw na ça fait à peine trente minutes wala ëpp na ko bi taw bi arrêté léegi ndox maa ngi nii demagul. dikkul kër gi dafa dem ba ruiné wu kenn nekkatu fi seeni borom génn nañu kër gi parce que ndox mi pratiquement yàq na kër gi yëpp ñële depuis sànq ba léegi depuis ci biir taw bi ba léegi ñoo ngi menace ñoo ngi ngàcc parce que ndox bi dafa dugg ci biir fii ngeen di gis chaque année ça fait des années c'est la même pratique c'est la même situation ay citoyens yuy patauger ci ndox bi pour mën a vaquer librement à leurs préoccupations ak fajar gu mu tombeel tax na ñuy jënd ndékki ils seront obligés à ce que ñu xuus ci ndox mi pour mën a génn lii moo nekk di xew fi nga xamante ne mooy Cambérène et chaque année que jëfe fais c'est la même situation et fii bokkut ak kaw taliba nga xamante ne foofu ndox mi mu fa mel jéggi na dayoo bokk ak aussi Cambérène 1 bi nga xamante ni signalé nañ ñu ko sànq que ni askan wi yëpp dañoo mujjee génn seen i kër pour di ngàcc donc lii mooy situation.